asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi nuyu Pape Aline di nuyu Baye Balla di nuyu également le promoteur jax di nuyu le parrain Moustapha Gueye di nuyu également xayitam bi Tall di nuyu la famille du parrain Moustapha Gueye toute sa famille di nuyu la presse ñu ràññee si boom drapeau bu mag bi matu moom lay jox nuyoo bi mu teg ko si loxo presse bi yëpp di nuyu les animateurs yi toogoon fii sànq di animer lu rafet di nuyu Ahlou Lamb Sénégal tey bu ma fi ñëwee tey dama leen dalal pas en tant que vice-président CNG de lutte mais dama leen dalal surtout en tant que xaritu parrain wi Moustapha Gueye tey ñaari casquette moo ma fi indi benn te bi ma ci gën a neex mooy kóllëre gi ma séq ak Moustapha Gueye mi toog beneen bi nag ma ñëw en tant que vice président teewal fi Bira Sène jàk si juumoo bi nga choisiré comme parrain Moustapha Gueye un jeune lii boo ko mënoon dàkkantal da nga naan drapeau de la jeunesse de Mbour ma yokk ci sax drapeau de la jeunesse du Sénégal c'est un jeune très entrepreneur xam lim bëgg xam fi muy teg tànkam xam également ni muy tege tànkam et mu ngi démarrer depuis tout jeunes depuis tout jeunes la am esprit de management esprit de leadership la Moussa incarné toute sa vie moi suñu diggante maak moom ça fait plus de vingt ans mais musul dox jéego bu weesu jéego leader bu weesu jéego de ménager euh, dañ koy féliciter donc di la féliciter yow Jax choix bii nga def euh, choix mënu ko woon gën a rëy choix mënu ko woon gën a honorable c'est l'occasion nag ñuy ñaan population Mbour ñuy joxante rendez-vous le 22 incha allah teranga gii nga defal euh, doomu Mbour defal ko jeune Mbour ñun waa Mbour ñu delloo le teranga gu ni toll ñëw massivement dimanche remplir stade bi incha allah di invité lutteurs yi am chance bëre drapeau bi ni ñu ngi bëre drapeau kilifa donc à l'image parrain bi ñu leen di ñaan aussi euh, ñu am comportement bu ni toll du ma ñàkk nag di leen interpeller ci benn phénomène bu génn muy l'histoire du temps réglementaire règlement bi dafa leer may nañ leen dix minutes pour ñu yeggale seen préparation mystique ku ñëw stade quatre heures ak butéel bu la sëriñ mën a wutal ak foo ko mënti wute boo commencé sangu quatre heures boo sanguwul ba sept heures c'est parce que da nga bëggul yeggale say sangu mais quatre ba sept day na sëkk pour nga sangu li nga bëgg a sangu surtout que aay la dugg ci biir géew bi may nañ la nga dugg ci biir géew bi saa yu la soobee nga sangu li nga bëgg a sangu delluwaat nga toog sa cummikaay sangu li nga bëgg a sangu delluwaat donc tu temps pour que trente minutes euh, dix minutes yi ñu la may nga mën ko respecter et doo joteeg kenn doo joteeg règlement donc loolu daal maa ngi ñaax mbër yi di ko tàmbalee nag si ñi war bëri le 22 bu ko defee ñu mën a am fête bu neex buñ si génnee également mën a savourer suñu victoire sans pour autant ñu am benn stress de règlement wala stress de contentieux. Euh, wax ji xaw na gudd mais vraiment euh, tey tey tey mbégte laa waxe mbégte laa waxee parce que kii ñu ko tuddee euh, jaral na ma lu nekk moom xam na ko man xam naa suñu diggante romb na làmb suñu diggante romb na fii yëpp maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen jox rendez-vous le 22 incha allah merci.